سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين bokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mbooleem jaamu yàlla gi ñuy def ñoo ngi nuyu ak di ziare sëriñ bi ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi te may ko fan wu gudd ak wér bam yeggale mboolem naalam yi dañ ànd moom mbokki jullit yi xam ngeen ne waxtu nekk jullit war nay nafaraat ndigali sunu borom yi tabaraka wa ngir gën caa mën a gën a tënku di nafaraat tam yi ko sunu borom tabaraka wa tere ngir mu gën koo mën a gën a may moytandiku tey jii nag ñoo ngi jëmaat ci lu jëm ci àqi dëkkandoo te muy àq joo xamante ni itam sunu borom tabaraka wa taala jox na ko yitte lool ndax bi mu wa ne waabudullaha wala tusriku bihi say a wa bilwalidaini ixsaana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن سبيل balaa ja jeex foofa sunu borom tabaaraka wa taala dafa joxe ndigal dugal ci biir itam lum tere lam digle moo ñu jaamu ko te bañ koo bokkaale ak dara kon lam ñu digal moo ñu jaamu ko moom rekk lam ñu tere itam moo ñu bañ koo bokkaale dara wala kenn waaye mu sësale itam ca ndigal yi ne wa bil waalidayni ixsaana nañuy rafetal jëme ci way jur yi ak way jege ñaale yi ak jirim yi ak miskin yi noona la koy toppe ba ci àqi dëkkandoo nee na ñu bàyyi ko xel te dëkkandoo nekk koo xamante ni su yàlla dogalee mu nekk ab jullit te nekk dëkkandoo àq ji doxoon diggante jullit ak moroom ja da cey seddu ab cëram ba noppi am luñ ko ca tegalaat te mooy àqi dëkkandoo kon moom bu yàlla defee nga am dëkkandoo boo xam ne jullit la ñaari àq dox na sa digganteek moom muy àq ji nga xamante ni moo dox sa digganteek sa mbokkam jullit ak ak ji nga xam ne moo dox sa diggante koo xamante ni sa dëkkandoo la te yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam fonkoon dëkkandoo lool ba ne woon koo xamante ni bëgg na ak ngëmam ak njulliteem mat nay rafetal dëkkandoo kam dëkkandool ahsin mujaawarata man jaawaraka takun muslima kon bokk na ci li tax ak njulit ak njullite mat mooy boo amee dëkkandoo ngay rafetal seen diggante ngir jëfandikoo ndigal loolu yonente bi alayhi salaatu itam alayhi moo waxoon ne daana faral di gis sayidina jibril alayhi mu muy ñëw ci moom di ko dénk lu bare bare itam dëkkandoo nee na daal yoon ya bari na te tegaloo ba yegg ci waxtu woo xam ne moom yonent bi yaakaaroon na ne benn bis jibril dana ñëw ne ko dëkkandoo mii bokk na ci ñi donnu ma zaala jibrilu yuusini bi jaar xatta donantu annahu sa yuwarrisu moom yonente boobu itam alayhi salaatu wasalaam moo waxoon ne képp koo xamante ni gëm nga yàlla gëm ne bis penc dana ñëw na ngay teral sa dëkkandoo man kaana yuminu billahi wal yawmi l axiri fal yukrim jaarahu kon loo xamante ni nag dana tax sa gëm yàlla mat te ponki gëm yàlla yépp bokk na ca itam gëm na bis penc dina ñëw lay tax loola gën a mat nee na bokk na ca boo amee dëkkandoo nga koy teral di jëf-jëf ju baax ak wax ju baax jëmi ci moom waxaat feneen te moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ab jaam day ak ngëmam du mat li feek dëkkandoom amul kóolite ci moom bu fekkente ni sa dëkkandoo waxtu nekk mi ngi séentu ci yow wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw loola dana tax sa ngëm manqué waaye safaan ba itam su fekkee sa dëkkandoo buñ ko laajee sa digganteeg moom mu ne mësuma wax wax ju ñaaw mësta jëf-jëf ju ñaaw itam jëme ci man loola day tegtale ne kon sa ngëm mat na laa yuminu abdun xatta yamana jaaruhu bawaiqa ñu nett ne am na waaju dikkoon ci abdullah ibnu mas'ud radiallahu anhuma mu ne ko sëriñ bi mu ne ko waaw mu ne ko man de dama am dëkkandoo boo xamante nii sama digganteeg moom neexut ndaxte la dox sama digganteeg moom daal mooy waxtu nekk damay lor ci ay wax ak jëf day yegg sax ba di ma daggal ay saaga waxtu it nekk itam day seet luy xatal sama dund ci xëy di ca gont Abdullah ibn Mas'ud ne ko kooku de yàlla dalaa nattoo dëkkandoo boo xamante ni lañ ko digaloon defu ko waaye ginnaaw nag mi ngi yàlla ci yow nag yow li ma lay digal mooy nga dem te topp yàlla ci moom mooy jëf ju ñaaw ju muy jëf ko ci yow na koy faye jëf ju rafet wax ju ñaaw ju muy jëme ci yow yow dénk naa la nga koy faye jëf ju wax ju rafet inna lii jaaran yudiini wa yastumuni wa yudayiqu alayya fa qaal izhab fa in huwa asa allaha fiika fa ati llaha fiihi naka noonu itam ndekate rafetal ak dëkkandoo bokk na ci liy tàbbal nit aljanna waaye ñàkk koo rafetal ak salfaañe nag dana waral nit ki itam tàbbi sa wara wala yaasu billah ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam jigéen jeeday nuru na ne ndax day bëccëg yëpp da koy màng di ko woor guddi yëpp dañ koy gis muy taxaw di naafila bu dee am na sikk daal sikk sañ gis ñun mooy day lor ay dëkkandoom waaye xool leen la ci yonent ba toftal nee na hiya fi naar nee na jigéen joojee day këram mooy sawara nga xam ne kon loolu ku ko settantal da nga xam ne kon lam doon def ci lu baax lépp muy koor ak bëccëg gaak naafilay guddi yooyu yépp la ko ko yàqal mooy dafa fonkutoon ay dëkkandoom daan jëf-jëf ñaaw jëme ci ñoom inna fulaanatan tasuumu nahaara wa taquumu leyla wa tudi jiraanaha fa qaala sallallahu alayhi wa fi nnaar mu am itam ku ñëw ci yonent bi alei salaatu wasalaam di ko jàmbat ab dëkkandoom yonent bi alei salaatu wasalaam ne ko tey ngaa muñ mu del siwaat jàmbataat ko ko mu ne ko tey muñ ba ca ñeenteelu yoon ba yonent bi ne ko li ci xam mooy nga fob say bagaas yépp ca mbedd ma ngir am na loo xamante ni moom laa lay séentul ci boo génnee say ba say bagage loola incha allahu dinañ ci yegsi ci kanam soobe yàlla sonore أكبر الله أكبر tolloon ci kooku doon jàmbat ab dëkkandoom jàmbat ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay yoon yonent bi doon ko muñloo ba ca ñeenteelu yoon ba yonent bi na ko xawma ci dul kon ñu jébaane ko noo koy jébaane mooy nanga nga génne sa bagaas yépp teg ko ci digg mbedd ma waaja fa bagaasam yépp génne ko ca digg mbedd ma génn kër ga yeneen dëkkandoo yow fu ñu rombee bagaase ne kii lu tax mu génn bagaase mi lu tax mu génne ko ñaxam digganteem ak dëkkandoom boobee daal ne dafa mënta gàddooti coono bi ko dëkkandoom bi teg ak loraanga yi mu koy teg moo tax mu génne bagaase mi ci digg mbedd mi ku dégg loolu rek daal ne kooku de yàlla na ko yàlla rëbb ba wax jabaree dëkkandoom boobee moo dellu si ci moom ne ko dimbule ma nga fobaat sa bagage yi delloo si ko ci biir kër gi ndax lii mënatuma ko gàddooti giñ naa ci yàlla ne dootuma la tegati loraange loolu nag lañ cey dégg kon mooy kon dëkkandoo bu te dëkk ja jar na jéebaane ko ngir mu dellu si ci ak njub jéebaane googu nag da koy def ngir laabiire ko ngir mu xam ne lor dëkkandoo baaxut te àqi dëkkandoo nag yëmut ci nga bañ koo teg loraange loolu baax na lool waaye itam loraange ju jóge ci moom nga gàddu ko itam loola beneen daraja jala doo yem ci gàddul ko loraange joojee itam waaye da koy laa biire ngir mu xam ne lor dëkkandoo baaxul kon bul lor sa dëkkandoo te sula la loree na nga jéem a gàddu loraange ja te nga yërëm ko te di ko digal lu baax àqi dëkkandoo yooyu nag mën nañ caa lim soo njëkkee taseek moom soo njëkkee taseek sa dëkkandoo nga njëkk koo nuyu wax ko asalaamualeykum te boo dee wax ak moom itam wax ja bañ koo guddal ndax am na dëkkandoo yoo xamante ni bëgguñ wax ju gudd te boo dee jàmmanteeg moom itam nga bañ koo laaj laaj yu bari yoo xamante ni day aju ci dund ak boppam wala dundak ak njabootam loo xam ne bëggut ku ca xuus ba sori ca te bu woppee itam nga seeti ko te bañ fa toog di fa yàgg ca su fekkee dafa am musiba mu wàcc ci moom itam nga defal ko bu amee kum faatu la itam nga jaal ko su nekkee ci mbégte itam nga ndokkeel ko ca te ànd moom ca mbégte moomee yéene ko su nju juumee itam nga jéggal ko bul tabax sab tabax itam bam tiim kër ga ba lu muy def ca këram nga koy séen te bëggut ko gis loola bul fab itam ab poto wala ab tabax nga wéer ko ci ab miiram ba miir ba man caa daanoo bul ubbi sa guccurub ndox muy tiim këram ngir bëgga fexe sa kër ndox du fa taa waaye lu fa naroon taa nga wàcce ko ci sa kër dëkkandoo loolu itam rafetul doo xatal yoon wa muy jaar ba mën a yegg biir këram maanaam buntu këram bul fa teg ay bagage lu mel ne móol wala nga fay sotti suuf boobu bëggee jàll ci biir këram di am jafe-jafe lépp loo xam itam daf koo ŋàbb mu wóor ne biir këram la ko jëme benn mu téye ko ci ay loxoom wala mu dugal ko ci ak mbuus loola itam bëgguñ ci dëkkandoo mu koy yërndu di bëgg a xam ngir bañ kumpa ak bëgga xam loolee mu ngàbb jëme ko biir këram lu doon su fekkee itam awraam wuññeeku na nag ko sutural naka noonu itam su ko bàyyee ak njabootam ngir tukki wala fàddu dem fenn na koy xoolal këram googe di xam ñey dugg ak ñey génn na koy jubbanti itam di ko xamal lu aju ci diineem su fekkee laaj na ko ko di ko xamal nu ñuy julleeg nu ñuy jàppe jàppe ak nu ñuy defee xamee sa farate jëmmam su fekkee soxla na ko te laaj ko ko naka noonu itam na koy xamal mbiram àddunaam lu aju ci liggéeyam luy tax mu gën jëm gën a jëm kanam itam su ko mënee nag ko def loolu lépp nag ay àq la yoo xamante ni dana dox diggante dëkkandoo ak morom ja ku ñuy wax abu dar radiyallahu anhu nee na yonent bi alei salaatu wasalaam dénkoon na ko ne ko soo manee soo ko manee nangay ngay baril sab ñulug sa ñulugu cin na koy baril ndax nga mën a sédd wala nga yakkal lenn ci say dëkkandoo te bul dëkk di lekk di leen bàyyi wala nga leen di fàtte ndax loolu rafetul jékkul ndax ak dëkkandoo déef koy rafetal isa tabaxta qidran fa aksir maaha summa andur baada ahli beytin fi jiraani summa agrif lahum minha loolu lépp bokk na ci rafetal sa diggante ak jëkk dëkkandoo mu amoon ku dikk ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yonente bi li ñuy wax lépp ci ak dëkkandoo ak rafetal ko dama bëgg xam nan laay mën a xamee ne ndax maa ngi rafetal sama dëkkandoo ak ñama dëkkal wala maa ngi koy ñaawal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko na nga def say dëkkandoo ñuy say seere nañ la mat seere ci sa saw doxalin sa diggante ak ñoom ndax su fekkee dégg nga leen ñu naan sunu dëkkandoo bii day wax dëgg yàlla mi ngi wax wax ju baax jëme ci ñun di ko jëf jëme ci ñun na la wóor ne boobaa rafetal nga waaye su fekkee dégg nga nag ñu wax la ko jàmmaarloog yow wala ñu la koy jëwee ci ne rafetaloo ak dëkkandoo rafetaloo ko ci jëf rafetaloo ko ci wax na la wóor ne boobaa sag dëkkandoog ñoom rafetul kayfa lii an alama ida axsantu aw asatu qaal alayhi salaam ida samicta jiraanaka yaquluuna qad axsanta faqad axsanta wa ida samiatahum yaquluuna qad asata fa qad asata kon sey dëkkandoo mat nañ la ay seere yonent bi alei salatu wasalaam ne ku yàlla namu ci moom aw yiw dana ko neexal ñu ne ko nan la koy neexale mu ne day def ab digganteem ay dëkkandoom day rattax bañ nekk ay soppeem man araada allahu bihi xayran assala qiila wa ma asalu qaala yuhabbibuhu ila jiraani ku baax ku ñu wax mujahid tam nee na bis dama seeti woon mbokk mu baax di kilifa di abdullah ibn omar ma fekk mu digal as ngóoram mu koy feesal ab gàtt waaye la ma seetlu daal mooy abdullahi waxtu wu nekk diggante bu nekk ma ngay wax ngóoram soosee naan ko boo feesee ba noppi bul fàtte suñ dëkkandoo bii nga xam ne ab yahud la bu ko fàttee cëral ci yàppu xar mii ngay fees nee na ma di ko mu koy baamtul di ko baamtul ba ma ne ko sëñ bi xanaa lii ngay wax de ñor na la mu ne ah kay mënumaa ñàkk ñor ndax yonent bi alayhi salaatu moo ñu doon dénk dëkkandoo bañ yaakaaroon ne bis dana ñëw mu ne ñu dëkkandoo day doon moo tax sëriñ Tuubaa mi nga xamante ne aw yiw la ñu ëmbal te bëggal ñu ko moom yemalewu ko tan ci yemalewu koon ci dëkkandoo rek dana lépp wala képp kuy mbindee fa mu yàlla na nga koy ëmbal aw yiw kunoo muhibbina alxuyuura li jamii xalqi ilahina almuqaddimi albadian nee na woon tam ni nga bëggee nit ñi nekke ko ak yow na nga nekkee ñoom noona wa kun maa annaasi jamian dëhraka kama tuhibu an yakunu maaka nee na tam diggante sa diggante ki dëkkandoo ak nit ñi doonu ne waxtu nekk lay neex léeg-léeg ñu tooñ la tooñ goo xamante ni da ngay yaakaar ne ñoo ko tey waaye nee na booba waa na ko jéem a gàddu supporté ko wa in jafaaka faxtamil jafatahu léeg-léeg itam jum njuumte loo xamante ni da xam ne njuumte la nee na boobaa na nga leen suturaal waaye mu tënk ko ci lu gàtt nag ne waraaci fi kulli xalqin xaqa man xalaqa nee na mbindeef moo gis rek na ko war maal jox ko cir ngir yàlla ma ko bind te def ko ngir jëm yàlla ma ko ma ko bind lam jeexale woon wax ji ne li dox seen diggante ci ay warugar li dox sa digganteeg ci ay warugar ak àq mu war mu war a jóge ci yow jëm ci sa mbokki nit nee na nanga ko def yow waaye àq ya ñu la yor sax bul séentu yow ñu fay la ko kon nag lii lépp ku ko dégg da nga xam ne diggante nit ak moroomam dis koy war di rafetal rawatina diggante nit ak dëkkandoom kon yàlla nañ ci yàlla boole dimbule wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 akbar الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه من سيء ذنوبنا ونشهد أنه الله الواحد في ذاته المنزه في أسمائه وصفاته ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم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 وتأمرنا بأن نجتنب نواهيه ونمتثل أوامره وتدلنا على أن الخير كله في الانقطاع إلى الله والإهراب عن كل ما سواه والمسارعة إلى ما ينال به رضاه wa tarki kulli ma yushghiluna an dhalik min alfawaid alfasida wa kulli ma lam yakun fihi faida wa tudhakkiruna aydan anna al-abda al-mu'mina bayna maxaafatayni ajalin qad madaa laa yadri ma allahu saani'un fiihi وأجل قد بقي لا يدري ما الله صانع فيه فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الممات نفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وهدانا وإياكم الصراط المستقيم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 wa ala alihi wa ashaabihi uli laydi wal absaar amma baadu fa yaa ibaadallah tadakkaru qawla nabii sallallahu alayhi wa sallam kun fi dunya ka annaka gariibun aw aabiru sabiil wa qaala aydan ightanimu xamsan qubayla xams xuduu min xayaatikum li mawtikum wa min sihhatikum li saxamikum wa min ginaakum li faqrikum wa min shababikum li haramikum wa min faraagikum li suxlikum wa xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu wazinu bi miizaani shariati jamia amalikum وما وافق منها قسطاس الشريعة فدوموا عليه وما خالفه فتوبوا منه واجتنبوه واعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى وعليكم ألا تزالوا خائفين وجلين مشفقين من خاتمتكم لأنها غير معلومة لكم وخطرها باق مع الحياة جعلنا الله وإياكم ممن سبقت لهم من الله الحسنى آمين يغفر الله لنا ولكم allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat hayya ala alfalah qad qamat salat allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هباء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للمسلمين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 الله الله أكبر سمع الله لمن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 سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله الله أكبر asalaamaaleykum asalaamaaleykum بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قدوس صل وسلم وبارك على من نويت an naabuduka bi xidmati li alkarim fi tuuba wa fi daari salaami wa fi daari lminnani wa fi daari lquddus farani lsalaamu walmannaanu tafriha baaqin indahu ljinaanu فراني السلام هو المنان تفريح باق عنده الجنان يقود للأطيب في الديور رب الورى القدوس ذو القيور دام دادي وخلام اليوم wa baado talimuqatil qawma anbaani alalimu walxabiru wa kaana lilwaasiu walkabiru radatu baatilan biaqin fazahaq waliljamilu kazaza yuridahaq ujaddidu tawhida walfuruca ما تصوف حوى بروعا لي يقود العلم والحلال هاد بخاتي يكشف الضلال قلب لي مقلب القلوب ما اختار لي ما اختار لي وانقاد لي مطلوبي قلب لي مقلب القلوب مختار لي وانقاد لي مطلوبي ديني يهب الله والمشفع مستغنيا بسره عن مدفعي دفي وجلبي قمة الهادي اللمين مع اللمين واللمين لامين wajjahtu lillahi kitaabati sinin waqaada li xayra alxalaali walfunoon saaltuhu wa innahu lmannaanu dooran biha taaluulana aljinaanu sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ali wa sahbi wajal tilka duyura mahrusatan wa masumatan wa mubarakata waj'alni qadimiha waj'alni qadimiha bil bina'i wa naqlil amtiati khayran yaghbituhum bi ghayrum fil ali wal mali amin ya rabbal alamin wajhim anni wa anfusihim wajjihim anni wa an anfusihim jazaan yazidum ragbatan fi xidmati amin ya rabbal alamin ya man shakartuhu ba'da alhamdi ala naqli amtiati wa ala albinai ya man mahal akdara walqutuba مني تقبل البناء طوبى يا من محى الأكدار والخطوبى مني تقبل البناء طوبى يا الله يا ذا العرش يا قدوس يا من له التكبير والتقديس سندارك الدهر عن الأكدار يا باقيا كونك لي جداري أنت السلام إنك المنان رحمن يا رحيم يا حنان صلي وسلم ولتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأقبلين مني بنائي ولتعاثم قبلي واكفي الذين قد بنوا أو نقلوا أمتعتي يوم الجواب ما يسقلون واكفي الذين قد بنوا أو نقلوا أمتعتي يوم الجواب ما يسقلون دار السلام توبى دار المنن daaniya alladi kafal qutuba ila duyoori samma wa tuuba daaniya alladi kafal qutuba ila duyoori samma wa hiya tuuba ashkuru insha fiha bisalaam shukran yaqiini ya adan maamalam rajawtu fiha minhu wa huwa dulminan qayba naasin bi furadin wa sunan idaahu jalla kama qad jaada liyabiya wa qurbati ajaada lillahi rabbi alayya kawni abdallah yaxdimu xayral kawni sallamani bi kawnihi salaama